ak de salon feutré ñuy wax ne Amadou Ba moo créé Pastef te ñi koy entretenir c'est parce que gis nañu Ousmane Sonko ba récemment euh, à mooy bi Amadou Ba génnee wax ak moom après Sonko tontu ko Parcelles Assainies ne kooku mboqat la loolu moo tax parce que nit ñi Euh, mosuñu gis Ousmane ko attaqué Amadou Ba. léegi dama bëgg a xam. Mhm. Euh, euh, Amadou Ba. Mhm. ministre premier ministre actuel premier ministre. Mhm. ndax dafa créer ndax dafa am degré d'implication dans la création du parti Pastef. loolu bëggoon naa ko xam sànq maa ngi lay laaj aussi tamit. oui daaree Cheikh Anta Diop waaw waaw ma ma njëkk a tontu ci daaree Cheikh Anta Diop moo ma gën a soxal. oui mais daaree Cheikh Anta Diop on a passé trop de temps là. non non non tout dama non dama koy expliquer lan moo tax ñu tuddee ko daaree Cheikh Anta Diop rek. Cheikh Anta Diop dafay kenn ci suñu référence yi. Mm-hmm. dafay ku ñu soxal. Cheikh Anta dafa dafa nekk kenn ci suñu référence parce que bi ñu koy créer dañoo jël ñetti nit def leen suñu ay référence maanaam def leen suñu ay royuwaay ki ci njëkk mooy mooy Mamadou Dia ku ci topp di Cheikh Anta Diop keneen ki di Thomas Sankara du Dia moom la ñu tuddee suñu siège bi Kër Maodo donc ñu yell ñu jàpp ne yell na li nga xam ne moom mooy yore mbirum formation compte tenu de ce que Cheikh Anta Diop ah, symbolise dans ce domaine là mhm. ñu tuddee ko suñu école mhm. moo tax ñu tuddee ko daaree Cheikh Anta waa JPS yi nag mhm. jeunesse patriotique du Sénégal ñi ngi xalaat ñoom fi mu nekk ni naka la ñuy def bu tuddee seen structure boobu Thomas Sankara. Euh, ñëwal ci question léegi maintenant Amadou Ba amul nu mu jegee ci création parti bi xam nga parti bi naka lañ ko créé ay xarit ñoo daan daje des amis ki sont du ministère de l'économie et des finances c'était des inspecteurs des impôts mm. c'était des inspecteurs du trésor parmi eux il y avait des inspecteurs du trésor c'était également des des, des chefs d'entreprise yu daan daje autour d'un bool di teg di waxtaan la situation du pays les préoccupait il se posait des question lan moo tax Sénégal en 1960 nekk l'un des pays les plus importants d'Afrique cinquante ans plus tard il est devenu le vingt-cinquième pays le plus pauvre du monde et c'était la principale question et la réponse qu'ils ont trouvée mooy que ne dara warul ko lu dul njiit yu bon mais bu ñu amee boo amee njiit yu bon nag est-ce que yow da nga war a croiser les bras sur le plan politique da war a croiser les parce que simplement tu au haut fonctionnaire am nga sa salaire et yaa ngi ci dans un confort assez assez important ñu ne non ñoom dañuy dugal seen loxo ci lan moo war a changer réew mi foofu la idée wu créer Pastef jógee du la parce que demoon nañu bay xalaat ne dañuy créer sax benn mouvement citoyen parce que ñoo mosuñu def politique kenn ci ñoom mosul def politique dañuy créer mouvement citoyen bu bu amee lu ñu war a wax ci dëkk ñu ne non loolu mouvement citoyen am nañu bépp défaut wu parti politique te amuñu toutes les qualités des partis politiques am ñu dem bay wax naa na ñu dem dugg ji ci biir parti parce que y a trop de au Sénégal ça, ça risque d'être parti de plus ñu ne non aussi la réponse qu'ils ont donnée mooy non parce que parti yooyu boo ci duggee sax boo moytu ñoom ñoo lay changer comme système bi ni mu lay changer voilà pourquoi ñu ne comme nous avons posé une question des questions éminemment la réponse doit être politique et la réponse c'est quoi c'est créer un parti politique parti politique boo xam ne day wuteeg parti fi nekk te discours bi nga xam ne moom la ñu nar a taxawal bindu ko bis bu nee toq ci nopp Sénégalais yi dootu ci génnati te looloo am. merci donc loolu mooy création mais Amadou Ba mosul a jege. création parti bi mais bu doon loolu kon Amadou Ba kon certainement dina adossé wu ci fi mu nekk problème yi mu jot a am. Euh, biir par APR ak Benno Bokk Yaakaar dina adossé wu ci. je pense que loolu c'est c'est c'est cette accusation là. non euh, Ousmane à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. il a pas fait de cadeau. Ah, ah, ah, à Amadou Assemblée nationale c'était des échanges. c'est c'est l'un non attaqué na ko nag frontalement. c'est l'un des rares cas et d'ailleurs maintenant ils ont le non ils ont leur relation. parce que Amadou Ba a été son directeur. c'est tout à fait normal que ñoom ñu am ay relations. les premières années. Euh, de Ousmane Sonko comme député à l'Assemblée. Hmm. Amadou Ba moo ministre des finances. mais voilà mais Ousmane ne l'a pas. si si alors.